bismillahi irrahmani irrahim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatam min lisaani yafqahu xawli bokk ñu déglu asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu asbaxna wa asbaxal mulku lillah walhamdulillah wa laa ilaha illa allah wallahu akbar allahuma inna nasaluka xayra ma fi hada al yowm wa xayra ma baad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 jaajëfal alxaaj bi sëñ Mbàkke si li mu nekkoon ci jataay bi ñaanal ko tawfiix sutura ci teraanga ak projet def dara liñ koy baaxu ja defee fajaru àjjuma mooy ànd ak yéen ci arisaala arisaala ay jataay la yoo xam ne risaala gi sallallahu alayhi wa sallam indiloon xeet wi jëm ci njàng jëm ci pratiquer seen diine yu demee ni yooyu ci la arisaala di jaar ànd nañ ko yéen ba ñëwoon ci julli julli coobare wu yeeg yu la demee ak ñu liqaam ba noppi nga bëgg fee doxale naafi la suñu bindu tey mu ngi jëm ci leneen ci julli lu tudd nodd waaw suñu bindu tey mi ngi jëm ci leneen lu nekk ci biir julli tudd nodd mosoon nañ cee ñëw nag waaye booba dañ doon waxtaani philosophie julli philosophie julli tey nag waxtaani wuñ philosophe bi waaye fiq bi la ñu bëgg a waxtaane tomb bi ma ciy njëkke mooy xamle luy nodd noddu mooy yëgle ne waxtu wu julli wi jot na noddu mooy yëgle ne waxtu julli wi jot na mu am ay baatam yoo xam ne moom rekk moo ko am ñu ràbbe baat yi niñ ko ràbbe ay phrase yu am solo ay baamtook yu nu demee yéeme ga ëpp na noddu bu ñu ko defee daal di woo mbooloo mi mbooloo mi daal di daje ci barab bu tudd jàkka noddu nekk benn shiar boo xam ne bi lislaam a ko moom jëggaaniwu ko fenn am solo lool nag noddu boroom xam-xam yi dañ koy def waajib ñenn ñi def ko mën duub ba demee ci téere bu tudd fiqhu sunna ca tom ba tudd al ibadat ca mbindum sayid saabiq boo demee ci xatum téeméer ak ñeent la wax ne nodd waajib la aw mandub nee na biñ ci dugloo al imam qurtubi dafa wax ne noddu waajib la wala mandub la mbokk yi noddu li baat yi di néew néew baat yi li muy néew néew mboole masaa'il yi jëm ci wàllu aqida noddu ëmb na ko mboole masaa'il masala yi jëm ci wàllu euh, pas-pas ak gëm noddu ëmb na ko boo seetloo fi muy tàmbalee ci kabar yi moom noddu mooy allahu akbar loolu bu piri mi leeree lu rëy rëy la te allahu akbar suñ koy firi da ciy dégg ne yàlla ko am la dégg ci ne yàlla ko mat la yàlla ko am la yàlla ko mat la allahu akbar e, bu ci jógee daal di indi tawxiid dàq lépp loo xam ne bokkaale la waaw tawxiid daal di dàq lépp loo xam ne bokkaale la bu ci jógee daal di saxal risaal ak sallallahu alayhi wa gi ne yàlla ko yónni aji nodd ji bu ci noppee daa di woote ci kaay leen ci jaamu yàlla gi kaay leen ci jaamu yàlla gi buy jeexal ca loola baamtuwaat ko nodd kon bu noddukat bi di woote bu noppee ca seede yooya dafay woo nit ñi ilal falaax wooli ñi ilal baqaa daaim loolu mooy boo doon résumé noddu li mu ëmb mooy sama tomb bu njëkk tombu ñaareel bi mooy ngënee li noddu danañ ci jéem a indi juróom benni addis bu xajee ci jataay bi muy ngënee li noddu noddu ak noddukat yi sallallahu alayhi wa sallam mi yàlla yónni woon ci nun daf caa wax lu ama am solo jëm ci ngëneeli noddu ak noddukat hadis yooyu may wax bi ci jiitu abu hurayrata radiallahu anhu moo ko netti mu ne anna rasulallahi sallallahu alayhi wa qaal law yaalami nnaasu maa fi nida maa fi l azan wa safi l awal summa lam yajidu illa an yastahammu aley lastahammu walaw yaalamuuna maa fi tahjir lastabaxu ilayhi walaw yaalamuuna maa fi l atama wa subh la atawhuma walaw habwa rawahu al buxaari wa gayru loolu ci ngëneeli nodd la ak noddkat yi Abu Hurayrata nee na yonente ba nee bu nit ñi xamoon li ne ci nodd bu nit ñi xamoon ci nodd ba noppi xam li ne ci sàppi su njëkk kenn du ko bàyyi sa moroom bu nit ñi xamoon li ne ci nodd bu nit ñi xamoon li nekk ci julli ca sàppi su njëkk sa ñu ne ah mu ne kenn du ko bàyyi sa moroom allahu akbar ndekete kon am na lu xew ci biir nodd lu nit ñi xamut am na lu xew ci sàppi su njëkk lu nit ñi xamut nit léeg-léeg mu ñëw ci jàkk ji waxuma la sàkk jàkk ji fees de waaye moo fa njëkk dem toog ca ginnaaw jàpp njàmburam kon ndekete koo ko xamut law yaalamu nnaas ma fi adan wa safi l awal kon kenn du ko bàyyi sa morom mu ne suñu amut sax pexe ndax xëccoo ga jar na ñu tegoo ko bant jar na ñu tegoo ko bant teg bant mooy ku ci ne génne sa kurus comme sàppe si ci kanam ñaari place ci des juróomi nit ñëw imaam àtte leen indi leen seeni kurus ñu dajale kurus yëngal ko woo jenn waaye mu ñëw comme teggi sa kurus ñu la yow duggal ci sàppe si ñu tegg kenam yow duggal ci sàppe si yonent bi nee na jar na loolu ma ne yàkkee Dakar moom loo yéex yéex a ñëw bu la neexee dem taxaw ca kanam maa la ko wax jàkk réew mi yépp sax la ñuy wax wala boog yu baree bari waaye nee na bu bu nit ñi xamal li nekk ci noddu xam li nekk ci sàppi su njëkk nee na jar na kenn du ko nangoo bàyyi sa morom loolu kon mbokk yi li ci ci ngëneel rëy na li ci ne ci ngëneel rëy na ñu ne waaw mu teg ci ne walaw yaalamuuna ma fi tahjir lastabaxoo ilay buñ xamoon teel a dem jàkka buñ xamoon li ne ci teel a dem jàkka ah dañuy rawante pour dem kenn ku ne wax sama morom maa lay njëkk ja jàkk ja buñ xamoon li nekk ci teel a dem jàkk mu ne ah mu ne euh, dañuy rawante pour dem ci jàkk ji mu tegaat ci ne walaw yaalamuuna ma fi l atama wa subh buñ xamoon li nekk ci julli gee ak li nekk ci julli suba ñu ne ha ah, mu ne kon danañ julli ji gee même bu ñu dee raam danañ julli ji suba même bu ñu dee raam julli ji gee ca jàkk ja jar nay raam di dem julli suba ca jàkk ja jar nay raam di dem hmm? yaa rasulullah moo ko wax waaw léegi nag waaw lan moo ci nekk ba mu jar raam di dem lan moo ne ci suba ba mu jar raam di dem loola ku gëm yonent bi xam li muy tekki xam ne lu rëy ca nekk su ko waxee su ko waxul waaw rekk nag junju la rek bu doy waar fi mu ne bu ministre yi daje woon ak président yàlla na yàlla sàmm leen ci seen ndaje moomu président yëkkati fa kàddu tudd jenn ilimaam walla benn ustaas teg ca baati ku baax a ngi noonu <laughs> teg ca baati ko baax a ngi noonu ministre yi ku jóge ca fa nga nekk rek li nga njëkk def mooy jéem a kooku waaw gis nga junj boobu yonent bi junj rek ña xam moo leen daan dugal ci jàpp ci yëf yi lu am solo la hmm? waaw lu am solo la waaw eh, kon hadis boobu moo njëkk ci sama tombub ñaareel te mooy ngënee li nodd ak noddkat yi ñaareelu tomb hadis bi ñu ngi ko jële ci muawiya muawiya ibn abi sufyaan radiallahu anhu mu ne yonente ba alayhi salaam dafa wax ne inna al muaddinin atwalu nnaasi anaaqan yowma alxiyaama rawaahu ahmad wa muslim wa Ibnu Maaja nee na yowmal xiyaam noddukat bu gàttuk doq du am yowmal xiyaam noddukat bu gàttuk doq du am doq gu gàtt ba mel ni dox ka xam nga xam ne dañ daan wax doq gu gàtt nii dërëm mu mburu <laughs> dox gu gàtt ni dërëm mu mburu euh, noddukat yi mucc nañ ci doq gu gàtt non seulement seen doq du gàtt waaye nit ñay ñëw yomul xiyaam ñoo cee gën a gudd ay doq ay doq ah waaw waaw ku xool noddukat rek xam ni kii dina nodd doq gu gudd tubaarkal la te doq gu gàtt day day indi ñaawañ waaw dox gu gàtt am ñaawaay ngi tàmbale ci doq gu gàtt moo tax suñu yaay yi ndeysaan pour bañoon suñ doq yu gàtt ñu daan cakkal ay per ay per yu tudd caq ay per yu du caq waaw aada la woon nag aada woon waaye aada ju baax la woon boo ko laajee Cheikh Ahmad Bamba Diagne mëla ca ca Pikine yal na ko yàlla yokk wér waaw dañ daan takkal nit caq pour dox gi bañ a gàtt <laughs> waaw seet ndax dox gu gàtt ci ñaawaay la bokk rawatina nag bu dee jigéen jigéen ñu dox ko gàtt ñu doq ko ma xam noddukat yi seen doq yi day gudd yomal xiyaam ndax yomal xiyaam nit ñi góor ñi duñ leen aaya takk ci seen baat dara nii ni ñuy takke or fii di takk ay ay ndàngam nàngam yomal xiyaam moom takk mën a xenjaw waaw asaawira min fidda wa saqaahum rabbuhum sharaban tahura mbokk yi maa ngi ci arisala maa ngi ci noddu maa ngi ci sama tomb ñaareel ci noddu mooy ngëneelu nodd ak noddkat yi maa ngi ci ñaarlu addis Muawiya nee na yonente ba nee na noddukat yi bee mel xiyaamee ñooy gën a gudd ay doq ca nit ñi ñetteelu hadiis bi ci bunt bi ñu ngi ko jële ci albarra ibnu azib nee na yonente ba salaam daa wax ne inna allaha wa malaikatahu yusalluuna ala safi lmuqaddam walmuazzin yuxfaru lahu mad mudda sawtihi wa yusaddiquhu man samiahu min ratbin wa yaabis wa lahu mithlu ajri man salla maa allahu akbar loolu de jar na ku nekk nekk bilaal di nodd albara ibnu azib nee na yonente ba nee na malaaka dañuy ñaanal ku jullee ci sàppe si ci kanam première sàppi ku ci jullee yëgal ne malaaka yi ñaanal nañ la inna allaha wa malaikatu yusalluuna ala saffil muxaddam aw kama xaala nee na ba neena na malaaka yi ak yàlla ku jullee ci sàppes ci kanam ña ngi lay ñaanal ku jullee ji ci jàkka ji jullee ci sa ca kanam ña malaaka yaa ngi lay ñaanal mu ne noddukat nag muy bilaal jàkk ji fi kàddoom yem ci noddu lépp lu ko dégg yaa ngi koy ñaanal waaw waaw rawatina nag bu fekkee sonorisation baax na ba mel ni sonorisation Makka ak Madina xaw ma kañ la ko suñu jàkk yi am nga xam ne noonu bu seet rek micro ba yàqu ñuy xor-xoral waaye <laughs> sonorisation Makka ak Madina cay bilaal yooya waaw bi bi sonorisation xewagut it boo noddee ñi koy dégg waaw yonent bi nee na li lépp lu tooy di dégg sa nodd gi ma lay ñaanal hmm? waaw mango yi darkase yi dibutoon yi xaasew yi aloom yi dimb yi lépp lu tooy sa sa sonwu nodd gi àgg ci ñoom rek ña nga lay ñaanal ñu ne ha mu ne ak lépp lu wow nag lépp lu wow mur yeeg bâtiment yeeg fauteuil yeeg ventilateur yéeg lépp lu wow lépp a ngi lay ñaanal ñu ne waaw mu ne ku julli si it am nga tuyaab ak julleem bi nga noddee képp ku julli si yow noddukat bi am nga tuyaabay julleem moom mbokk yi lii moom lii moom waaw waaw loolu la alayhi salaam jàngale ci nodd almundari yi nettali na mu ne rawahu ahmad annasaayi bi isnaadin xasanin jayyid ustaas cheikh tànja ñu jële ci abu darda mu ne samitu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaquul ma min thalathatin laa yuazzinuun wala tuqaamu fi musala illa stahwada alayhim sheytaan rawahu ahmad nee na bu ñett dajee bu ñett dajee ñetti kër ñu xeeb seen mbooloo ma ba duñ noddu xeeb seen mbooloo ma ba duñ ba duñ liqaam seytaane ferenkulaayu ci seen kaw féewale leen ba ñu dóorante yet <coughs> mhm. dëkk bu ndaw wala as ndëkk walla gëti ñetti kër ñu xeeb mbooloo ma ba duñ nodd xeeb mbooloo ma ba duñ liqaam léeg-léeg aada tax duñ fa noddu léeg-léeg aada tax duñ fa noddu léeg-léeg aada tax duñ fa liqaam amul daje kenn ku ne ñenn ñu ne jullee seen kër illa stahwada alayhim sheytaanu seytaane ferenk laay ci seen kaw féewale seeni xol ñu ñuy dóorante yi ay korpañ ak yat hadis boobu di imaam ahmad moo ko nettali li mu teg kon mooy nodd gi ndekete day dàq seetaane cib dëkk loolu ma mafhum bi mi ngi noonu ndekete nodd ci am pénc dafay dàq seetaane juróomeel ba ci hadis yooyu ñu ngi ko jëlewaat ci abu hurayrata radiyallahu anhu mu ne yonente ba daa wax ne al imaamu daamin wal muaddin mutaman allahuma arshid al aima waxfir al muaddinin aw kama xaala nee na imaam dañ koo assuré hmm? waaw imaam assurance la am sunu borom moo ko assuré moo tax penc mi yépp ko war a assuré ànd ak moom buñ ko joxoñee rek yàlla joxoñ leen ma wax la ko tey al imaamu daamin imaam sunu borom def ko assuré mbokk ñun ñëpp nañ ko assuré hmm. ndeysaan am na dëkk yoo xam ne boo boo fa nekkee imaam ñoom ña xam luy imaam imaam yi màkk yee ak madina ministre yi ñoo leen ñee imaami màkk yee ak madina ñoom ñeewuñu ay ministre ministre yaa leen ñee waaw al imaamu daamin sunu réew mii kaay ngay ñëw fekk imaam luñ deseel yët ko waaw sarax yeeg ganaar yu feebar yeeg di san sarax yi gént yeeg kayiti tabax yeeg yooyu la ñuy jox imaam waaye imaam daal na yëg ne daamin ndeysaan ñu ne waaw mu ne muazzin moom mutaman waaw muazzin mutaman euh, muazzin moom dañ koo ko sécuriser noddkat bi yàlla ko aar yiir ko moom noddkat bi yonent tamit teg ca nag ñaanal leen mu ne yàlla yàlla na nga jubal ilimaan yi jéggal noddkat yi <coughs> alayhi salaatu wasalaam yàlla yàlla na nga jéggal ilimaan yi yàlla na nga jubal ilimaan yi jéggal noddukat yi hmm. alayhi salaatu wasalaam bi ci mujj ci addis ci bunt bi ci suñ bind tey muy ay risaala ci tomb noddu ñu ngi ko jële ci uqbat ibnu aamir mu ne sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul yujibu rabbu azza wa jal yu yujibu rabbuka azza wa jal min raa'i ganam fi chashba waaw bi jabal yu azinu li salaa wa yusalli nee na sunu borom dafay kontaan ci sàmm bu ne ca àll ba ne ca diggante xeer yaak montagne ya ak xur ya ak ngeer ma noddu liqaam julli noddu liqaam julli waaw dafa am nit ku siiw ci jàngkat yi ku ñu wax Napoléon Napoléon dafa mas di dox ci àll bi ba mu yàgg mu séen sàmm buy julli mu bind ca téere waaw ah, mu bind ci téere daal lii rek la ñuy wër waaw lii rek la mooy sàmm bii di julli na ci àll bi moom dong ki xaram ak xaj bi koy wéttale teg aw yatam kàbbar julli waaw loolu euh, Cheikh Ismaïla Sow ñoom ak Samba Dadal xam nañ ci dara ndeysaan mu ne sunu borom di wax ne unzuru li abdi hada yuaddin wa yuqimu salaa yaxaafu yaxaafu ni qad xafartu li abdi wa adxaltuhu ljanna mu ne day wax ne waaye xool leen sama jaam bi fi mu nekk ak ni mu wéete moom doo nga xar yi ak xaj bi koy wéttile ragal ma tax mu nodd li xaam julli na ngeen xam yéen ñëpp ne sama jaam bi jéggal naa ko bis na ko tey dugal naa ko aljanna bis na ko tey rawaahu ahmad wa abu daawuda wa nasaayi mbokk yi benn bind ngi noonu ci noddu bu ñu ko dégloo benn yoon ñaar yu yoon jàpp ñeent incha allah dinañ ñëwaat continue buntu nodd boobu ndax mu amul nu njariñ ñu ñëpp tabarakallahu yàggeen jëfal nañ leen jégglu soxna yeeg sëriñ si ak seen fi war a jëkkate jotaay bi ndax suñu mbokk yu xëy ci xibaar yi ñu ngi ne taxaw yor seen i këyit bëgg leen a firim fàncal xibaar yi ci tubaab firim fàncal leen ko ci wolof ñaanal yàlla ñoom ak yéen ak suñu technicien bi ak suñu àndandoo bi C3S mi ak Free Industrie Free Industrie yàlla yàlla defar seeni mbir defar suñuy mbir te def ci suñuy poos dara in uridu illa al islaha ma tataatu wa ma tawfiqi illa billah wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu